bisimila salaamaaleykum mbokk jullit yi salaamaaleykum mbokk taalibe yi maa leen nuyu di leen ziar ku ci nekk sa tur ak sa sant voilà tey boo leen gisee ma def vidéo bi daanaka dafa am benn bu ma defoon ci Touba am ñenn ñu mu méttatlu am na ñenn ñu koy méttatlu tamit ñu metti mais maa ngi tuub nag di jéggalu bu baax a baax xam ne ñun ay ndaw rek lañu amaana am pastif ak xër rek moo ñu yóbbu woon ci loolu waaye nit bu dul juum te it amul amaana dama juum maa ngi jéggalu nag di tuub di jégalu bu baax a baax a baax xam ne tey bu doon bu démb doon tey du ma ko mës a def ndax su ma xamoon dina am ñenn ñu mu metti te it am ñu mu nakarlu du ma ko a def sama maa ngi tuub nag di jégalu bu baax a baax a baax di ñaan tamit ngeen jégal ma rek te yàlla tax jërëjëf ñu mu méttitlu am na ñenn ñu koy méttitlu am ñenn tamit ñu mu metti mais maa ngi tuub nag di jégalu bu baax a baax xam ne ñun ay ndaw rek lañu amaana am pastif xër rek moo nu yóbbu woon ci loolu waaye nit bu dul juum te it amul amaana dama juum maa ngi jéggalu nag di tub di jéggalu bu baax a baax a baax xam ne tey bu doon